jërëjëf euh, Moustapha Ndiaye ci loolu nga xam ni ci nga ma joxe kàddu gi muy màggal gu mag googu di màggalu sëriñ Touba di nag euh, bés boo xam ni mooy sunu bés di bés bu mag ci nu wuy ji di ku màgg di sunu jàmbaar di gaynde ñëloor di maam borom Touba maam borom Touba ma nga ganee àddina ca Mbàkke Bawal ci ama sarki 1880 1853 Touba nag ni ngi ko sanc ci Wasashi dëppoo ak 1306 ci taarix al islam ci la sanc Touba Touba nag tafa bu nu ko seetee ci wàlli biir boo demee ci alxuraan ci suuratu Rahdi boroom alxuraan dafay wax ni lesina amanu waamilu salaat Touba lahum husnu maabin way texe yëpp Toubaay seen kër mu ni danaa fexe ba dëkke tuuba wala ma fexe ba moom Touba wala ma fexe bay doon borom Touba yooyu yëpp sam defal na ko ko moom Cheikh Ahmadou Bamba nag tafa bi mu jógee rek dégg nga Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax ko nee na addina masu ko tax a xëy addina addina masu ko tax a gont addina masu ko tax a rañaan kon bi mu jógee moom Serigne Touba dafa wax ni jawastunaas jéggi naa nit ñi wa maa fi ay dinaas ak li nekk ci loxo nit ñi ilaa rabbi naas jëm ci borom nit ñi fala maa wasaltu ila rabbi naas bi ma demee ci borom nit ñi axtaani jox na ma nafu naas njëriñal nit ñi wa kafaani fegul na ma duru naas loru nit ñi kon ki amee njëriñal nit ñi te loru nekk loru nit ñi nekkul ci yow faw